kanamu taskatu xibaar yi la liggéeykat yu bokk ci syndicat des gens de maire de l'offshore pétrole et du gaz du Sénégal bu ñu sukkandikoo ci bile secrétaire général bile secteur nag dafa rango rëkk-rëkk yu bëri. ñi nga xam ne ñoo ci njëkk a euh, ñoo ci njëkk a jege war ci liggéey ñooñu gisuñu ci seen bopp ba génn di ñaxtu di souffrir les gens souffrent sérieusement su ngeen xoolee li may waxee waxeewu ma waxin wax rek pour wax mais damaa bokk ci ay association de marins. nekk marin gis li ñuy dund li ñuy subir te ñi fi toog ñëpp xam nañ ko dafa metti te loolu dafa war a dakk dañ ci war a gis sunu bopp ci riir ko parce que mu ñuy wax contenu local ñi koy ñi fay liggéey nekk ay gens de mer di dem géej te mënuñu wax quota bi nga xamante ne nii moom la marin sénégalais yi am ci biir loi bi ne ci la ñuy demee géej. gile maree nag ñu jàpp ni rek seeni ay njiit dañoo lajji ca la taxoon ñu wóolu leen ci bile secteur looloo waral bile syndicat di woo nguur gi. parce que erreur bi mi ngi commencé également mooy la non implication li ma waxoon rek des de de des marins dans les instances de décision parce que tey balaa ñuy wax ay contrat pétrolier gazier di ko signé waroon nañ ci impliquer les officiers supérieurs de la marine maanaam laaj leen ci seen xalaat mais nag dañoo am ay limites ñoom. c'est la marine marchande suñu yëf la mais euh, président de la République daf ñu war a déglu di ñu laaj suñu xalaat pour yenn erreur yeeg manquement yi dootul am te jot na mu recevoir également le syndicat la déglu ñu ñu leeralal ko ñiy waajal bis bu ñu jagleel des anses de mer ci àdduna wërngal këpp ñu dëgmal ko ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ñoom nar cee porox ndoll rek indi ak coppite ci noonu ñuy liggéeyee ba noppi itam di woo nguur gi ngir rek ñu mën a tënk poŋ ya leen soxal ci bile secteur bu weesoo loolu rek ñoom marin yi ñoo ngi xamle ni rek mën nañoo suuxeel bile secteur bu am solo ci wàllu koom-koom.